machine boo xam ni ñoom bi ñu bi ko jumaa ji soxlaa am na ñu bari ñoo xam ne ñu ngi ci li ñu ngi ci réew mi di fóot ay tapis ba ndakaaru waaye xamuñ sax ni machine bi am na ni ñu fóotee tapis rek di ko tiim di ko brosse wala ñu koy brosser lance moom nañuy def waaye bi ñu gëstoo ba xam ne am na ñuy liggéey ci àdduna bi machine yoo xamante ni mën naa fóot tapis ni ñu ko war a fóote ci fóotin wi am fuñ ko njëkkoon a gis turki lañ ko njëkkoon a gis sax mujj gi ñu gis boo xam ne moo ko gën mooy bii yàlla dogal ñu indi ko fii tey ñu gis ko Italie te ka ko liggéey euh, nekk Espagne ñoom tubaab yi ñooñu ko jaay euh, def ci ndimbal itam ndax loolaa tax ma wax leen nañ jege si sax ndax bi ñu demee ba ci biir ni Serigne Touba baaxoo wane boppam ci ay liggéey Euh, lañ ñu joxe machine bi daanaka dañ dañoo mel ni ku ci amul dara mujj gi ñoo xam ne ginnaaw lu ñuy liggéey lu ñuy liggéeyee di ci wut xaalis te ñoom kuy liggéey rek lañ koy jaay ñu ne kon ñoom tam danañ ci def seen dara ba wàññiwaat ñoom ñi ñoo ñu ko jaay kii mooy technicien bi koy monte si nga xam ne lool rek ko fi indi. moom bi ñu ko euh, bu dee euro de moom xam naa dama ko teewlu waaye 36000 euros la woon ñoom ñu wàññiwaat ko ba muy 33900 euros. waaw waaw ginnaaw bi nag euh, technicien yeeg li ñuy indee projet ba fii moom mooy li lim bi sëñ Ibrahima njëkk a tudd noonu rek. lu bari ndax euh, ma euh, tapp yi dafa bindoo noo xamante ni nit loo am am kàttan loo xereñ xereñ am na suuf si ak pënd bi nu muy demee ci biir loo koy génne dootul yomb machine nag bu système industriel yi rek moo ko mën a génne moo tax muy muy muy machine bu révolutionnaire battage boobu nag bu génnee suuf si ak pënd bi génne waale ne allergènes yi ak bactéries yi ak microbes yu bari. Euh, ba teb bi oyof yooyaat nga xam ne day euh, ànd ci karaw yi dem ba ci suuf bi mu génnee am deuxième phase boo xamante ni yëpp da machine bi da ko boole muy ñetti phase mooy lavage bi ay brosse da koy tiim di ko di ko raxas di wàcc saabu ak ndox ba euh, mboolem teb bi yegg muy daw ci kaw tapis bi ba ci kaw rouleau bi ba ba ba ba loola loola loola mat mm-hmm. bu ko defee buy génn ci ginnaaw da koy enrouler ba ni ñuy lemee tapis noonu comme niñ ko niñ ko niñ ko lemee nii rek bi muy dugg ñu dugal ko ci wet gi ba tap bi yëpp dugg ci guddaay bi mu weñ ko comme ni ma machine à laver yi di weñee nga xam ne day fenn ba nga xamante ni loo boo ko tegee eh, lu mu gàtt gàtt rek mën a wow loolu yëpp nag procédé boobu yëpp da koy def en six minutes euh, te euh, bu dee xeetu tapis yi nga xamante ni ay 4 mètres la sur 1 mètre 20 euh, mën na ceel fóotundoo ñaar nga xam ne bu fekkee yaa ngi liggéey huit heures de temps ci bis bi mën ngaa fóot ba ay quatre-vingts tapis wala lu ko ëpp loola nag daa yombul ci euh, fii mu toll réew mi yëgaguñ fi kenn ku yor machine bu ni mel ndax seet nañ ko Dakar te ñoom euh, ak réew mi yëpp gisuñu ku xam ñi ko xam sax bari ñu waxuma ak